allo allo allo. gars yi ñu dem. léegi nga may amaat. yaa

di nuyu waa Waalo Tàkk di nuyu waa Ndimbu Ndimbu Pël Cekkeen Yiba Góolam di nuyu di nuyu waa waa Casamance bu baax a baax a baax waa Buy waa Bokot waa Jembareng waa Kabrousse di ko teg ci loxo Eva Diatta borom France di nuyu bu baax a baax a baax a baax képp kuy bëggee caat Daara fal di rafetlu teewaayu sama waa écrit yëpp di ko teg ci loxo la Père Golo ak Papa Mbës Fils de Balla Lat Dior Zalkona xam nga Alioune Seye 2 kontaan si ñoom Papa Lirou xam nga Sa Thiès maa ngi rafetlu taxawaayam baax baax baax ñaa bu ndaw aw ma fayam. di ko ñaanal yàlla may ko ndam xam nga aw ma fayam moom aussi tamit waaw. caat dimanche jege si na fan nga samedi jege si na fan nga toll ci wàccaa bi sa diggante ak Papa Ndoye parce que li ci des bëreetul. non pare naa yàgg na pare naa bu yàgg. lan moo boole ak adversaire bi amateur yi la wala promoteur wala supporter yi wala yaa bëgg wala moom. noo lamb la lamb la lamb moo ñu boole mu man ma a bëre ak moom. Hmm. boole hmm. ok jege bi aussi tamit amul dara lu muy wàññi si yow jege bi ngeen jege. jege ban. comme le fait que mu dëkk fii nii nga dëkk tout près Guédiawaye. non bul jaawale loo bokk ak lu ñu boole. dégguma ma ne bu jaawale loo bokk ak lu ñu boole man dama fee bokk man direct Guédiawaye mooy daw sama yaram boo ko weedee jëlal paaka dagg sama yaram zone bële ngay gis. moom dëgg fi ok nga jël adversaire ñu bëri ci làmb taxaw ne xale bi am na combat mosoo am adversaire bu mel ni Papa Ndoye complet di xeex di bëre di bëre di xeex ba pare nekk poids lourd waaw mais wax nga wax ci mais du daan daan kat béy ngi hmm? jeex na tàkk mosuma toog sax di xalaat ci moom sérieux hmm. maa ngi liggéey li ma war a liggéey pare naa yàgg na hmm. jour si laay xaar ma jàpp waa daan ko mbër mbër bu dër kii sa ni Pam Ndoye faalewul dóor faalewul xeex faalewul bëre mas nga am sa carrière comment ma jël bu ne loolu la ñuy wax te yàlla mi ngi may suturaal di loxo yàlla di ko ñaan mu suturaal ma ci làmb ji mm-hmm. waaw oh, ma si ma si jaar au passage di nuyu waale Balla Gaye numéro 2 Ndiaga Ndiaga Balla Gaye Pade Cissé xam nga Aliou ma fiyaa Sondrio bi yëpp maa leen bëgg cent pour cent mala guddi bu Grand Médine aw ma seen fay maa 53 ASC Negueye waay yëpp ama seen fay maa leen di bëgg di len woor bu baax a baax baax ñëw teewal ma ma daan ko mm. incha allah ayca Babacar bu paree Thier way Modou ñu gis ni da ngaa jël adversaire bo xamante ni nii yaakaar naa sa carrière yaa ngi soog am adversaire bu melni nii ci xeex ci bëre ci os comme ni ko Modou Anta waxee nga jógoo nga jàkkaaroog mun na damay passer examen te damay jàll adversaire bi mo tolloon noonu wala ba ngay wax loolu excès de confiance nga doon dégal wala loo gëm non li ma wax leer moom daa def examen échec échoué. Ah. defaat examen échoué. Hmm. man ma toll si def ma du ma échoué. incha allah dama koy daan damay jàll. moom nee na lay corriger de. <laughs> man du ma doom ba mu corriger. ah. maa ngi moom nii nii xoolee ma ko sax mag. Ah, ah. sax laa koy xoolee. ok parce que dafa lekk sama avance. ok maa nga xale amatu ko. Hmm. parce que moom wootewul loolu. waaw donc man du ma ko wootee. incha allah dinaa ko duma dinaa ko hmm. le fait que mu taxaw ne caat yar. parce que seen caatu kër di amee ndooy me nga fa da koy pine te saa bu ñëwee mu ko pine fa koy fekk yow mii ci caat yooyu nga bokk. caatu kan la seen caatu kër di amee ndooy. nu mu tudd Rose bu ndaw Lac Rose numéro 2. kii caat Daara Fall bu dëgër bi mënu laa pine naa ko biiru yooyu PAM do yaay xool longue masse wala courte masse bu la gënal. ok Thier. Thiat baax Thier. xam ni euh, combat Eh, coow hmm. wala ampleur sa biir carrière mu sa diggante ak Pape Ndoye mais adversaire bi nga am dafa nekk adversaire bu nga xam te ni bi xamewul janj ak joor ba pare mu dugg géejawaay am lu fi jëlee lu ko metti mu posé ne rattrapé wu te mun a si caat la koy jaaree est ce que tamit dina yoon li ko waxoon si signature bi rek laa koy waxaat fii lay bàyyi wala walay ba faaw inshallah allah di ñaanal Jackson yàlla may ko ndam jëlu sa dweej woon benn werante di di félicité karim mi bëri démb di encourage Papa mi mu bëri bëri démb yaa waaw. ayca Thier na ñëwaat. waaw. ayca demal demal. déggu ma. dayoo bi dayoo combat xam nañ ko bu baax a baax. moo tax li fi xew nii xew fi. gis nga li fi teew. Mm-hmm. Guèye dañ dama bokk si yaakaar yi. te li ma teg sama bët du kii. daa am ay compte yu ma war a réglé. mais du kii moom muy téye pour ma réglé ko. te incha allah dama koy réglé. du ci woo Baye Ndiaye bu baax a baax baax. kon Ndiak maa ngay woo Aziz Ndiaye aw ma fayam suñ papa papa maa ma faal maa ngay woo bu baax a baax a baax si laamu ji. képp kuy daal star nekk biir Guédiawaye ak képp kuy daal star di bëgg ca Daouda Fall aw ma sa fay maa lay jaajëfal bu baax borom sereer yi awa seen fay mu nekk waa waa marché Sam waa Pàcc Baye Moussa xama waa marché Ndiarème waa marché Bés ñoom ñëpp aw ma seen fay maa leen bëgg bu baax a baax a baax ok ñu ñëw ba tey ci état de forme bi dañu gis ne macha allah da nga progressé par rapport ak yeneen combat yi masse bi est-ce que du la teree bëre wala kontaan nga ba mobile antre euh, na nga athlètement ba moom sa bopp. moo tax da am benn wax boo doon wax bàyyi leen si xel. Hmm. mais léegi suñu équipe am na modèle bu nekk. ba pare moom mag la man doom mag laa ay mag wër ma. moom mag la man doom mag laa ay mag wër ma. maanaam ji may bëri nii nii nii. waaw daa am lu mu laaj li mu laaj liggéey nañ ko ba am ko te incha allah dinaa ko daan. Hmm. ok Serigne foo nekk ak kenen ku bëgg poser question lamb bu tollaa fi da nga daan wax ne caabi bi amna ku la ko jox ba nga téye ko te téyegagun kàddu bobu. non wax na xana xanaa ma waxaat ko. ok Jackson. jox na wa caabi mais Jackson daf ma denk caabi yi. da la ça veut dire. le premier ci goudi 23h dama koy delloo caabi. ok Inshallah. allah. ayca ana Serigne ak ku bëgg poser après mu woote. Fallou ayca micro bi demul demal demal demal. waaw waaw. ñu ngi lay fay. bëre ak Pape Ndoye di bëre combat boo xam ne ci sa carrière yaakaar naa ne combat bëre ci bëre waaw après nag mi doon nag dafa diis de dafa diis de yow nag nga mën a bëre ci bëre waaye foog sa kanam mu xeex bu rëyal nga jàpp ko daane Pape Ndoye est-ce que tey bu bëre li nga bëre ko li fay dëgg ak xeex bi léegi la mooy la mooy différence bi différence bi mooy Pape Ndoye day xeex di seetaan ko combat moom ko li fay dëgg seetaan ko ay combat comme combat bu nekk ak niñ koy aborder moom day bëre day xeex ma damay doon may jaar may may may jaar may ma si ma si profité au passage di nuyu Diack confection da waa kontaanoon bu baax a baax a baax si waaw loisir mi ñu defaral et tout xam nga di kontaan bu baax a baax si Mamour yi di ko bëggee bu baax a baax moom tamit di wax Pam ñu duñ gënt mbër mbër moo ñuy gënt loolu paase na loolu paase na. bàyyi ma bëree woon ak Kaaw boobu xale bee doon bëre. mbër maa ngi nii. waaw jërëjëf. loolu man maa leen ko war a wax. trois mois suñu affaire gisuñu ma. te man ak ñoom même pas deux même pas deux cent mètres. saa ma ji sama bakkan laas teg. bu dul dara waa Guèye waay yabu ma leen. ok ok Thiat nga woote rek comme temps bi. xat na woote kay jot na. bala ngaa woote aussi tamit kenn ku ne xam na ne làmb fi mu toll léegi mooy affaire de mobilisation mbër am na fi sept combats am fi six combats bëre ji ay grand combats. te macha allah combats yi bëriwul mais yaa ngi doon andi bii lan lan mën a xaar ci mobilisation bu doy waar. gars yi am lan lañ wax sax am na benn wax bu ñuy wax de mais waxu waa mag la mais dama ko amunul wax. ok mais yéen gis ngeen seen bët. waaw lancement bi. waaw gisoon nañ waaw di profité waale di nuyu di ñaanal suñu grand suñ papa suñu lëpp mi la déggee numéro 2. Mm, yàlla teggil ko nattu yi. di ko wax ne ko fi mu nekk gënaluñu yéene wuñ ko ko. Mm. yàlla na ko suñu borom génnee fi mu nekk ci barke Seydina Mohamed. waaw kooku suñu waay la suñu grand la suñu lépp la. ok nga woote ci côté mobilisation bi aussi. nga woo ñi lay jàppale. waaw loolu daanaka woote weesu na. loolu li ñuy liggéey liggéey nañ ko ba pare. Ah. waaw ñi ñuy woo mooy si suñu si jàpp bu baax a baax a baax. Ah, ah. di leen tàllal loxo bu baax a baax a baax muy ku si mel suñ grand suñ lépp góor gi si ruq bi njaga Balla Gaye Pam Mama Fall xama suñ tooma suñ lépp muy Petit Fall borom turki ak mafia am bi waa Cambérène ama seen fay xama mafia golf bi ñoom ñëpp ama seen fay di woowaat di woowaat bu baax a baax Balla Gaye numéro 2 mu jàpp ci di woowaat bu baax a baax kor kor njaak xalil ale Ndiaye mafia bi yëpp maa leen di woo bu baax a baax si làmb ji waa waalo Mm-hmm. waa Fuuta maa leen woo bu baax a baax a baax uh-huh. muy waa Caareem mm-hmm. xam nga sa dëkk wolof yëpp mm-hmm. maa leen woo bu baax a baax a baax waa Liw waa Pare xam nga di woo suñ papa Samba Ndour bu baax a baax a baax aw ma fayam xam nga suñu suñu yaay muy wuri maa ngi koy sant bu baax a baax di ko tàllal loxo di ko wax ni ko sonn ci làmb te dinaa ko andil ndam li Amar Pall aw ma fayam xam nga def si kot làmb ji sa làmb la coor kenn du la wax kenn du la wax waa Mbacke Koulibanta maa leen sant bu baax a baax a baax képp kuy séeréer noonu maa leen di woo bu baax a baax a baax a baax a baax a baax Mouhamed borom Kaolack aw ma sa fay maa lay tàllaat bu la sa loxo bu baax a baax a baax di woo Serif Aydara si laamu ji di ko wax mu jàpp si bu baax a baax a baax ak njaboot Cheikh Sadou yëpp maa leen tàllaat loxo bu baax waa kër Seydi Hadji Malick maa leen tàllaat loxo bu baax njaboot maam maam Limaam Laay maa leen tàllaat loxo waa kër Serigne Touba maa leen tàllaat loxo bu baax képp kuy téye kurus di ñaanal caat daara faat maa lay ñaan nga ñaanal ma ñaanal may ma ndam kullu kuy waalo waalo maa lay ñaanal jàmm di la ñaanal nga ñaanal ma yàlla may woon ndam di wax kontaan naa si yéen jàmm si yéen boo waajalal